allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin al awarri billah wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi bilatana barke borom Tuubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di jiital ci nuyoo bi Sëñ Muntaxa Mbàkke ñaan saa borom yàggal ko fi loolu te mu ànd wér di jël nuyoo waa Kepaangook salaatu ala nabi yëpp ci njiital sëñ Basiiru Ture di ko jox sëñ Abdou Samad moom sëñ Sohaybu mi ñu fekk ci këram tey ngir mu waxtaan ñu ci lenn ci njëriñal salaatu ala nabi noppi soññ mbooloom keppaangu salaatu ala ci naka lañ war a fonkee salaatu ala nabi nan lañ ci war a doxee lépp nag ñi ngi ko ñi ngi ci jublu waajal bésub salaatu ala nabi bi nga xamante ni ren jii mooy nekk ñaareel bi yoon ñu koy def kër Sëriñ Bassirou Touré fële ci sàmm Boqatul Mubarak ñiy ziar mbooloom yëpp di wax Sëriñ Abdou Samad ne ko waa Képpangu Satoxna bi ñu ngi koy béggee bu wér di ko safoo te mu njëkk ca sëriñ Bachir Touré xamante ne mbégte la am ak kontante ñëw fii sa wet dagaan la jotaay bii nii kon dañuy ubbi suñuy xol taataan jox kàddu gi sëriñ Abdou Samad mu laa wiire ñu rek ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam waajee ko bis boobu di bisub salaatu ala nabi bi ñuy amal pour sëñ Bassirou Touré le 14 décembre rabbi kon ñu jox kàddu gi sëñ bi incha allah. billahi min ashaytaani rajim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sadaqa allahu alazim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbih wa habli cheikhina ahmad bni muhammad bni habibillahi ma nawaahu li nafsih wa habli ummati rasulillahi salla allahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka ma nawaahu ahmad bni muhammadin lahum amin ya rabbal alamin innaka anta alwahhab asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu mboolem soppe yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di nuyu mboolem taalibi Sëriñ Tuubaa yi koy liggéeyal ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di jiital ci nuyoo boobu yi kii ko fi nekkal Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko te mottali ay yéenam ci liggéeyal sëriñ bi di nuyu bokkam yëpp ay rakkam ak i doomam ak setam ak bokkam yi ci biir yoon wépp ak cheikham yi cheikh yoon wépp ak taalibi yoon wépp dina ñaanal it jàmmi adduna ak jàmmi àlaxira sëriñ Bachirou Touré mii nga xam ne sunu dooma ndax soxna Tahiratu mu Cheikh Abdoul Ahad mooy waajuram waaye day nun ñi ko jurit yebuñu ko te naw nañ ko ndax ak jubam ak xam-xamam bu rafet ak nang koo joxe te sëriñ bi rek tax agit it bëggam yonent bi sallallahu waaye bëgg googu gépp nag daa dugg ci bëgg sëñ bëgg yonent bi moo tax amu ci sago ak liggéey bi mu ciy liggéey di ci gindi nit ñi ba gi gii ngeen di wax ak njàmbaaram moo tax mu egsi fi mu egsi te it mën naa àgg kon nag boo amee bis bu mel nii ñëpp la ko defal jàpp naa ni ñëpp a ci ànd ak moom dana bari moos ko toog ci këram te xamu ko def ay salaatu ngir jàppale ko ci bis bi te du fa ñëw te du ko jàpp naa loolu kon nag noo ngi ci soññi bokk jullit yëpp yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko bokk waaye nag di ci soññi nag bokki taalibe murid yi xam ne nag dañoo am yaakaar joo xam ne yaakaaram jépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam la kon nag lu ko waay mën a defal liggéey boo ko mën a defal liggéeyal ko ci yonent moo ko gënal loola salaatu annabi nag def am doole lool te rëy lool ci borom bi ndax lu mën a digal jaam ñii danañ koy digal rek waaye moom rek moo loo xam ne da koy defandoog ñoom inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi door ne nag yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi fekk ngeen ma ci maak samay malaayika ñu di ko def fekk ngeen ma ci maak samay malaayika ñu yë julli ci yonent bi kon nag yéen ñii gëm julli leen ci moom sëlmal ci moom loolu nag Sëriñ Tuubaa bay ci laaj ci woo xam ne kenn mësu koo bay te kenn du ko bayaat ndax waxuma limu gi quantité bi ak qualité bi waaye fam ko doon defee nam ko doon defee foofu la ko kenn du fekk tëdd ci sam néeg mu sedd lekk la nga bëgg la lekk di julli ci yent bi na nga ko bëggee baax na naam waaye toog ca gaboon noonu yi wër la kenn ku ne yor ay ngànnaay kenn ku ne bëgg laa lor ba noppi nag sa xalima daw sab xol di di tudd yonent bi di ko di ko di julli ci moom saw làmmiñ di julli ci moom sa xalima di bind di julli ci moom loolu la ko kenn fekk <laughs> salaatu sitta bi matxi sitta tatihi batta ma atisay moom joxut yonent bi lii bàyyi lii da ko jox léppam waaw da ko jox léppam xaaj juróom benn weer yi muy julli ci moom juróom benn weer yi mu di ko tagg te salaatu sëriñ bi li nga koy xamee mooy du julli mukk ci yonent bi te sëlmalu ci du julli ci yonent mukk te ñooñam ak saxaabam ànduñ ci dégg foo ko gisee rek am na luñ ci wàññi wala sëñ bi defu muy loo xam ne nag jëf yëpp a baax jëf yëpp a yaakaaru waaye moo ci gën a yaakaaru ana lu tax mooy jëf joo xam ne kenn du ko delloo masama dégg Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu ñu ne ci kër Abdou Karim Fall ci fatu yim daa fatu foofu yàlla dogal mu yóbbaale ma fa. mu feex lool ci waxtaan mu muy waxtaan nag ci sëriñ bi daal di ne jaamu yàlla yëpp de baax na waaye nag jaamu yàlla goo ci bëgg mu ñu nangu ko mu am garanti da nga koy jox sëñ Tuubaa addiya ndax boobaa kenn du ko seetati ndax jaamu yàlla gum mën a doon. dana dem ba ci asamaan su jëkk si am malaayika mu fa ne am lu mu cay xool bu ko ca xoolee ba gisu ko bàyyi bu demee ba ca seneen asamaan saja des am luñ cay xool buñ ko ci gisut bàyyi mu jàll noonu lañ koy topp bu juróom-ñaari asamaan yi lañ cay seet buñ ko gisut mu door a jàll na nag ku mën a romb asamaan yooyu te gisuñ ci sa jëf mu jar ñi du ko def nee loolu jafe la daal waaye nag li tax li tax jox sëñ bi sa lépp gën a noppale mooy sëñ Tuubaa duñ seet dara loo ko jox ñu nangu daal ne man nag man Abdoul Ahad nag moo tax man moo fas yéene samay julleeg samay koor sama jàmm yàlla yëpp jox naa ko maa ngi leen koy misaal nag ci mi ngi mel ne wut kooku su ndox amul wut kooku su ndox nga bëgg caa sanku bëgg caa fóot bëgg caa togg daa mënta ne ana nooy def demal mélancé gi borom géej borom géej ju jeex xamal kooku su sotti ko ci géej rek bu ko defee doo du jeex <laughs> nag mooy rawatina nag sëñ Tuubaa nga di ko nga di ko liggéeyal ci yónent bi Sëñ Tuubaa moom liggéeyal ko moom ci boppam bëgg na ko waaye nag la ko gënal lépp nag mooy nga di ko liggéeyal ci yónente di ko jullil ci yónente leen julli gi ngay julli liggéeyal Sëñ Tuubaa nga loolu da lay wër ne nangu na ko yónente bi nangu na waaye nag lu ci waaye sasoo ko respecté na ndax tàmmal tàmmal tàmmal sëñ bi bu ne mu dégg taalibeem bu julli ci yónente bi nangam mu dogg ci ne dana ko def am bis bu manqué te adduna rek tax itti adduna rek tax dara jël ko ci kon lu ma tabaxal la jàpp naa ne keppaango bi dañuy xëy di julli ci yonent bi néew ma amutoon waaye la ko jiitu néewaana ngay gis ñu koy def loolu lépp nag ci kimaani Sëñ Tuubaa la bu yàggul rek man mii sos naa euh, jataay yoo xam ne mi ngi war a àddina fépp ñu di ko def te ñu koy def sax duñ gisante duñ xamante te moom mii laa ci jiite diwaanu salawaat laa ko tudde mm, fi ne àgg nañ ci bis bu ne danañ am cent vingt quatre mille ñetti yoon buñ xëyee danañ dama ne leen na ngeen faxe ba am inda sabaax yoo fil masaa waaye léegi nag am nañ bëccëg bi fax sax léegi doole si buñ xëyee danañ def cent vingt quatre am na ko sosoo du manqué am nañ ay secours it nga xam ne ku am ngant jox leen bu bëccëgee ñu amaat cent vingt quatre mille bu guddee ñu amaat cent vingt quatre mille loolu lépp ci loxoom bii laa ko teg mu jëm bis bi set it danaa jul bind genn julli ci sëñ bi julli ak léeg-léeg ma barkeelu ci gaa ñu baax ñu ne waaye dama cee barkeelu rek waaye sëñ bi asalawaatu xadimiya moo ma gën a jox bu ma ca bindee dama koy jox mu firi ko leeral ko nit ñi wax leen lim yi ak lam ca xam moom it tasaare loolu lépp ci liggéey liggéeyal ci Tuubaa nun nag sunu yëngu sunu dal sunu lépp loo gis ñu di ci yëngu mbégum sëñ bi rek lañ ciy wut ak ngërëmam dañ ko dañ ko fi weesu di dem di wuti lenn waaye dañ koy dàkk ak bëggam rek moo tax foo nu dégg ak luñ dem ñun ñëpp foofu la ñu te fi ma ne fi la ne xanaa koo seere ka ca jàngale alxuraan ak ka ca bëgg alxuraan ak ka ca bëgg yonent bi yëpp da bi te xam ne sëñ bi ak bëgg mooy yonent bi ak alxuraan loolu rek la waaye sëñ bi suñ lépp nag kon nag noo ngi soññi ñëpp di soññi suñ bopp ci bis boobu bi di fukki fan ak ñeent ci décembre bi ci këram bu ma yàlla mayee kàttan aku man maa fay jiitu ñëpp wax naa ko ne ko ma sëlmalee fajar fa laay naan kafe ma fas naa yéene maa fay njëkk jàng fa ma baatil bichir ubbi ko incha allah di ci soññu bokk yëpp nag ñëpp jàppale ko ñëpp and ceeg moom la ca des ñi mënta ñëw ne bitim réew wala foo ay mën a ne mm-hmm. bis boobu na nga jàpp ci julli ci yonent bi loo man mm-hmm. boo ma ne am numéro yi joxe ko ñu xam lim yi mm-hmm. ku ko mënti suñ borom xam ne lim yëpp te moo ci am solo sëriñ bi xam ne lim yëpp ak sangam kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax te jàpp ci te ñaanal sëñ Basiru itam sasam wu rëy wii mu saso muy xamle ak yeete ak jàngale te loolu bokk ci li sëñ bi gën a bëgg suñu borom kàttanal ko may ko wér yàggal ko fi lool ba sasoo du boy mukk ndax am nañ ci yaakaar yàlla bu yaakaar tas wasalaamaaleykum wa rahmatullahi naa xol yëpp sedd nan te li ñu doon séntu am na si lu kawe suñ njort di fàttaliwaat mbooloo mi rek képp a ngoog salaatu ala nabi biñ ko sosee ba léegi semaine bu jot ay million la ñuy julli ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jox di ko jaale ci liggéeyu suñ tubaab bi bi nga ko sotee nag ba léegi depuis deux mille vingt et daaw moo nekk première édition bi nga ni mbokk yi woote nañ ko comme ni ko suñu Abdou Samane woote waxee mbokk yi taalibe yu bari ñi ñu bari xamante wuñ ndax ci internet bi lan lan lan lan jokk daaw ñu def ko ñu ne nan woote bis xamante ni dañuy dajee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daaw mu amoon yéenay teew lool waaye suñu borom dogalu ko ren bëgg na caa teew ñëpp dégg na ko kon ñi ci woo mbokk jullit yëpp di fàttali rek ne di di dagaan ci mbokk jullit yëpp rek ñu ñaanal ñu ko su borom yàggal ko fi lool moom ñu koy dagaan moom mii mu ñaanal leen ñu suñu jëriñ ji di sëñ Bassirou Touré suñu borom yàggal ko fi ndax bu fi yàggee lépp dina baax lépp dina baax ndax bi ñu jiitalee bi biñ ko bi bi bi nekkee ci ci keppaangu salaatu ala bi ba léegi. lépp luñ xam ci salaatu an nabi ñëwee ci di ko yaatal yëpp moom mii moo ñu ci taat moo ñu ci taaw moo ci taaw lépp luñ xam ci salaatu an moom mii moo ci taaw kon ñu ngi koy ñaan sa boroom dolli ko kàttan doolu ko dëgër lii mu yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa àggale ko maanaam ko mbokk yëpp kon ñi sant bu baax Sëñ Abdou Samad di sant mbokk taal bi nga xamante ni ñoom lañ àndal ci bi ñuy ñëw. ci demee sëñ Saliou Lo sëñ Modou Mouhamed Thiaré ak sëñ caméraman yi sëñ Babacar ak euh, sëñ Moustapha Mbow ak soxna Fatou mi nga ni ñu ngi soxna yi mm-hmm. kon ñu ngi ziar ñëpp di wax di jox sëñ bi kàddu gu mujj rek mu ñaanal mbooloo mi. di wax di mm-hmm. na ci amu sas. waaw incha allah rabbi mu jox leen ay lim. alhamdulilah alhamdulilah mm. bis bi daal li muy demee daal mooy. bisu bisu bisu bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom saa su nekk danañ ci ñaan laal tamit waaye daw li nga xamante ni ñoo àndoon ñun liggéey bi suñu borom def ñu jiitu ci ñëpp dañ leen ci ñaanalal ñaanalal waa dawlu yëpp nga xamante ni saa doone bi moom benn ba rek ëpp na kenn nit waaw moo tax képp koo xamante ni suñu borom ci aadama ba ba ba ci jonni tey ak képp kuy demaat ñu dugal la ca suñu borom taawu la ci liggéey boobu noonu kon eh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy fàttali mbokk yëpp ku ci mën aw sas ci salaatu an nabi xasida lépp mu mu jiitale ko bis bi bu demee ba ci bis ba tamit ku mënta ñëw fa a toog nga julli ci yonent bi sallallahu daf ko jox ko kon ñuy jox sëñ bi kàddu gu mujj gi rek mu ñaan mbooloo mi alhamdulilah jërëjëf arrahmaanu ya rahimu ya maliku ya quddus ya mukrimu ya laka alsanaa walhamdu walchukru maa ala allazi fadlaka lii qad jamaa salli salaatan tamlau alsamaa wal arda yaa man xaada li namaa maa salaamin yartaqi lil arshi wa yamlau alkursiya yaa zal farshi wa yudxilaani albishra fi qalbi annabi sururi kulli aqrabin wa ajnabi ala annabiyi almuntaqa muhammadi wa alihi wa sahbihi wa rahmatulah barakallah inna nabiyana rasula ahmada إن النبي الرسول